gën a yokk indi ñu dañ koy tàmbalee wàllum diine ndax ku ne xam na ni dafa am lu xew yàggul dara ñu gis benn docteur boo xamante ni dafa faat bakkanam ak bakkanu njabootam parce que dafa amoon contentieux ak soxnaam soxnaam doon ko bañal ay wareefu sëy loolu nag moo ko poussé ba mu def lu ni mel loolu diine lan la ci wax. waaw d'abord Amina maa ngi lay sant li nga ma may occasion ma lancer un appel à la raison. parce que gis nañ ba natt boobu dalee ñaari njaboot yi parce que ñaari njaboot la ndax euh, soxna si jur xale yi am na famille bu mu bokk boroom këram bi nga xam ne natt bi ci loxoom la jaar moom tam am na fu mu bokk te ay nit lañu ay góor ay jigéen ay père de famille ay mère de famille comme ñun ñëpp kon nag euh, ñooñu. Euh, de de côté euh, Jamra mu ngi leen di masalu ci nattu bi ndax natt bi metti na nga ñeenti bakken yu ñett yu ak ki nga xam ne moo ko sooke muy ñeent ci benn diir mu nekk une perte cruelle pour les deux famille metti na moo tax nag ma doon ñaan mbokk internautes yi euh, ñu def lefort de s'imaginer à la place de ces familles ndax rafetul ay famille yu nekk ci mettit ku nekk nekk ci sa page Facebook di ŋawte ŋawte un problème privé boo xam ne muy man muy yéen xamuleen ci dara parce que way juru xale yi euh, siiwal na ci réseaux sociaux yi benn lettre d'une dizaine de page daal di joxe sa version waaye terewul yi tamit famille soxna si ñoom itam am na ku ci yëkk kàddu euh, xëy na beau-frère am la xëy na nijaayam la xawma nu lien de parenté bi deme moom tamit joxe version boppam voilà kon nag defe naa li gën a rafet mooy ñu màndu ci comme que mbir mi eh, yoon eh, jël na ko def nañ eh, jéego bu njëkk bi moo di examiner le genre de mort li tubaab di wax autopsie autopsie bi bés bu ne rek nga gis révélation bu bees parce que dañu ne woon poson la woon moom la ñu jox xale yi Eh, élément yi mu mujj génn te presse bi répercuté ko ñu ne non euh, xale yi dañ leen xoj version yi bari na kon nañu bàyyi ñi yàlla féetale enquête bi euh, ñu saytu mbir mi bu ko defee ñoom bu ñu eggee ba sa càppaandaw la ñoom enquêteurs yi lu ñu mënti wax rek parce que seen métier la yaa xay ñu lu tënku ci loolu waaye fi mu ne sénégalais yëpp ay euh, ay ay ay Jacques Jacques Boyer lañu. sénégalais yëpp ay commissaire Colombo lañu bu mbir amee fekkew ñu ñu yëguñu tinuñu waaye ku ne rek bëgg nga jóg def sa enquête bopp euh, nañu respecter la douleur de famille na nañu respecter le deuil de ces familles te ñaan yàlla natt bu mette nii yàlla bu mu ti ci askanu Sénégal incha allah. nee nga kii dem dem na moom mënatul dëpp benn yoon di défendre boppam docteur Palla mënatul def demi tour défendre boppam mënatul tamit répondre question yi nga xamante ne moom la ñu ñuy déposé mais d'après li nga xamante ni moom la wàcc ginnaaw ndax ci la ñu mën a basé wu pour poser des questions d'après lettre bi nga fi bi mu fi bàyyi mu nekk plus de dizaine de pages euh, wax énuméré na si ay détails yoo xamante ni ci lislaam am na lu mu ci wax maanaam soxnaam toogoon na benn moment 42 jours mu koy daw ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mi ngi ko doon reproché soxnaam ba tey jii nii mu sës sës bi daal di koy yóbbul mu li l'irréparable donc tey jii est-ce que ci euh, diine soxnaam soosu di woo ci turu Ndeye Awa suñu borom am na daan bi mu teg ci kawam parce que bundu xataal na jëkkëram d'après li mu wax ba mu génn àdduna wala listam amul lenn lu muy reproché soxna soosu. waa foofu itam euh, damay delluwaat ci. Euh, prudence morale bi ma jiital sànq si sama njaal benn kàddu mooy comme que ñaar ñu jote la te ku ne am na kàddu goo yëkkati maanaam li tubaab di wax version e, te ñun du ñay àttekat fekkewuñu yëguñu tinuñu foofu tamit nañu ci maanu ndax e, li nga wax mooy li waa ji bind ndaw si gàntal na ko quarante de jours waaye e, réseaux sociaux itam am na li ñuy tuddee les audios fuités xam nga ndax seetaan nga comme déet am na koo xam ne c'est une proche de de la dame contraire bi la wax nee na au contraire ndaw si elle était victime de violence conjugale parce que nee na d'après li ndaw si wax waa ji daf leen dafa daf ko daan dóor alors yooyu xam nga waa ji bind ko ci lettre bi voilà léegi tam waa ji li mu wax ne daf ko daan gàntal pendant 42 jours xam nga loolu tam côté ndaw si ñooñu itam waxuñu ko. voilà comme que nag c'est la parole de l'un contre l'autre wala la parole de l'une contre l'autre nañ ci mbaanu te bàyyi attekat yi atte ñu bàyyi waaye nag waaye nag sur le plan général pour tontu la sur le plan général ci wàllu chariatul muhammadiya jigéen buy gàntal boroom këram kooku moom la réponse coule de source ñëpp xam nañ ko suñu boroom moo jëkk rëbba loolu parce que bu fekkee soxna si amul ngànt ëmbul feebarul nekkul ci euh, période am euh, dégg nga euh, ba pare nag di di di gàntal jëkkëram ci kaw topp ba kenam loolu dégg ngeen li ci ulamaawu tafsir yi wax nee nañ suñu borom malaaka yi saytu suñu comportement ñun doomu aadama yëpp dinañu rëbb ndaw si di ko bindal ay bàkkaar di ko bindal ay bàkkaar ba fajar jot si kaw dafa gàntal te amul benn empêchement waaye na bu dee dafa feebar wala mu ëmb walla euh, mu nekk daal ci ay xat-xat wala ci ay jafe-jafe sa euh, n'est je ne parle pas de ce cas là waaye l'islam koo xam ne yow dara gàllankooru la lu dul rek nga topp sa bakken ak caay-caay ak di ko di jéem a mettital sa borom kër dinañ malaaka yi dinañ la rëbb ba fajar loolu nag dara jaru ko mais dans tous les cas l'islam dafa privilégier le dafa demande ñu privilégier le dialogue entre lome et la femme te kenn bañ ci dugg parce que néegu sëy dafa xat euh, wala tout au plus ñi ci war a dugg buñ ci naree dugg daal na nekk ci sensu euh, xiir leen xiirtal leen ci sàng seen bopp sutura te di waxtaanee seen mbiru néegu sëy ci sutura parce que mbiru néegu sëy kenn du ko euh, xaw yi sur la place publique parce que yoonu kenn newu ci et puis il y va de l'avenir des enfants yi nar a jóge ci sëy bi ndax ñoom itam il faut il faut respecter leur avenir te xam nga léegi avec les nouvelles technologie lu ci waay dugal rek te gens c'est quelque chose ndax defe naa nekkoon na chef du service informatique du CICES pendant 19 ans léegi serveur informatique yi euh, loo ci stocké ci ay données euh, ay renseignements sous forme de texte de son ou de vidéo am na durée de vie minimum minimum trente ans alors d'ailleurs bu ma daan yàdda jigéen yi bëgg wut xaalis ak buzz dem ci série yi ñu di leen futti pour des salaires dérisoires loolu laa leen wax mu ne lu ñu leen mën di fay jaru ko na ngeen xalaat ne di ngeen am doom war a ami sët am yi doom ngeen nekk ay maire yu màgget yore seen yat di kocc koccal yore seen kurus di semblant ne yéen a ngi kii xale saay saay naan xoolal ma maire bi rek. moo fi daan def lii ak lii mu nga ca YouTube mu nga ca Instagram lii la fi daan def dara jaru voilà looloo tax nag léegi la situation est devenue plus délicate euh, ci wàllu weerante ak xawante sutura ci wàllu sëy nañu suturalante sëy naa limaam am na baat bu pertinente bu mu daan wax dafa ne nañu leen nëbbalante ay ayib xam nga kon euh, ça sous-entend que kenn si ñun matuñu matul ku góor ki matul ku jigéen ki matul moo tax si kaw suuturalante muñalante ci lañu ñu mën mottalinte moo tax euh, diine lislaam encourage waxtaan euh, ci baat bu sell boobu te Seydina Mohamed daan ko baamtu tout le temps wa amruhum shura baynahum day leen di faratal shura tubaab di ko wax concertation wolof di ko wax diisoo alors ci couple bi la gën a yellool nag Eh, nee na fa isa azamt boo leen waxtaanee ba fi seen xalaat ak seen pexe doomu aadama yem fa tawakkal alallah yi ngeen doog nag lu ci yàlla voilà kon daal eh, loolu daal mooy li li ñaan yàlla rek jigéen ñi ku ci amul dara lu la gàntal dara lu la gàllankoor dara lu la empêché voilà nañu fexe di accomplir seeni devoirs conjugaux ku góor ki itam di accomplir ses ses devoirs conjugaux comme li ñuy wax rek quoi qu'il en soit moom sëy boo ca nekkee yaa ca boo ca génne génn nga ca boo ca nekkee li la ca war nga def ko comme ni ma ko imam Kanté waxee woon sànq ci suba waaye tamit li nga xamante ni moom moo di wàllum suicide bi ak meurtre bi nga xamante ni moom moo xew ci biir sans pour dugg ci seen vie privée mais dans le cadre général euh, bu ñu sorewul ci alxuraan sax dañuy faral di dégg ñu naan quoi qu'il en soit meurtre kenn du ko cautionné quoi qu'il en soit suicide nekkul loo xamante suñu borom da koo tàcc. waaw meurtre euh, suicide c'est meurtre à la seule différence que yaa ngi ko exercer sur ta propre vie mais c'est meurtre parce que su vie moo moo ko suñu borom moo ñu sàkk te ba pare fonk ñu nag avant benn bés ma doon laaj benn oustaz ma ne ko yaa dama gis ci say waxtaan booy fësal. fonk gi yàlla fonk bakkenu doomu aadama dama dégg ngay wax baatu ñun ñooy caatu yàlla ma ne ko ça je ne kon dafa mel ni yàlla dafa jur te loolu mu ne ma déedéet loolu waxin la parce que yàlla ginnaaw bi mu sàkkee asamaan sàkk suuf sàcc sàkk géej gi aalam gi euh, jaww ji jéeri ji gàncax gi doj yi mala yi jinne yi malaaka yi et cetera et ba ca fin ba ci la doog a créé doomu aadama kon nu sommes les derniers nés moo tax yàlla fonk ñu ndéem doomu aadama jëkkër ak jabar da ngay am ñaar ñett ñeenti doom yàlla leen beneen juróomeel ak li njaboot gi sakkan yëpp en général sa sa sympathie sa sentiment ak sa tendresse mu ngi jëm surtout ci ki mujj ñëw Euh, caat moo mel noonu caat dafa bari wërsëg ñun nag sens boobu la ñu am ñun euh, être humain yi ñun ñooy caatu yàlla dans toute l'architecture dans toute euh, la pyramide de la création moo tax suñu borom wax ci téere alxuraan bi pour wane ne fonk nañu mu ne wala xadd karam naa ni aadama yéen doomu aadama yi dama leen yëkkati au niveau de la seigneurie cest à dama leen yëkkati niveau boo xam ni yéen a ma gën a jege que n'importe Euh, laquelle de ces hiérarchies de ces catégories euh, de création nga dem ci suñu mbokku katolik yi seen téere bi yont yàlla instant wàcce di Injil ñoom ne nañ Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance foofu tamit waxin la bu wane ne yàlla dafa fonk doomu aadama ba daf ci daf ci séentu boppam daf ci daf ci daf ciy seetu boppam alors kon nag bu suñu borom defee loolu ba noppi yow nga jóg ne danga koy faagaagal moo xam bakkenu jàmbur wala sa propre bakken yaa ngi jéem a indi gàllankoor ci le la volonté divine te yàlla ku bëgg gàllankoor ay euh, taxawaayam ak ay euh, commandement am yaa ci loru rek mooy loolu taalifkat yi naan dafa mel ni doj ak nen rek nen bi bu tojee ci doj bi moom mooy toj <laughs> bu bu doj bi dalee ci kaw moom it mooy yàqule kon c'est la même chose kon nag faat bakkan moom rien ne peut justifier rien muy bakkenu jàmbur muy sa bakkan parce que ñaar yooyu yëpp moo yem ci bëtu yàlla voilà moo tax nag ginnaaw nattu bi am na euh, mun ñu rek ñaan suñu borom mu àtte leen ci yërmandeem waaye nag waaw daan na dem jàkk daan na lii daan na woor daan na saraxe suñu borom daal nit def na lu raw loolu ba noppi mu am ci àtte boo xam ne kenn séentu koon kon nag kuy ñaan famille boo xam ne nattu dafa leen dal bu mu am ñeenti bakken yu dem mën dul ñaan na leen yàlla àtte ci yërmande waaw ndax moom mooy borom yërmande amul lu mu mënula jéggale